9 juróom-ñaari waxtu jot sënkam xabaar yi marax yi asalaamaaleykum li gën a fës ci boppi xibaar yi jongante yi pencu ndaw réew mi atum 2017 acteurs yi politique yi wala bokk société civile bi ñoom xam nag lu leen di xaar ci mbir mu may tax ñu gën a nag amal pour ndaje fas ne ba ma askan wi ñu rek bàyyi xel wot yooyu la ngir gën caa mën a sóobu bu baax loolee nag ndaje bu yaatu lañ ca woote woon tey. ay rek ay bés moo tere siiw lu jëm ci jongante yooyu ñu nim ku nekk ci xew bu senegal coalition yu mel ne mbàccum gerte ginnaaw benn Bokk Yaakaar Manko Taxawu Sénégal coalition gaajo ak ñi mu àndal yàggul dara daañu gis beneen bu juddu mooy nag am na ci ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc wàllum politique am na jàngat buñ ci def dañ ko teewlu ci biir xibaar yi. lu jëm nag ci nekk nu xale yi nekk nu jaar yoon loole moo nekk ci xolub ñi nga xamante ni nag euh, moo nekk wala bokk ñoo bànqaaso ci nguur gi di les autorités étatiques ñoom nag gis ne euh, lu tool ci ñetti euh, téeméer ci ay millions daal gis nañu ne jamono ji dañoo bëgg rek fexe ba jële leen ci lii di mendicité maanaam yan waal gu metti gi ñu nekkee ci kaw tali bi loolee woote woon na cim ndaje ci xew bu Sénégal lu jëm ci nag li nga xam ne moom la ñu dippe ay musée mel na nag nam daan taxawee taxawaay ba des na jumtuwaay yooyu nekk bokk na ci li daan tax ñuy gën a mën a sàmm taarix ak histoire bu xew bu Sénégal tey jii fukki fa ak juróom-ñetti Europe mais nag ñuy màggal bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu musée yooyu yeneen ci ponk lañ ci boole mu buur xabaar yi ci kanam ñu faram fàcceel leen mbokk yi nuyuwaat leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bisimilah ci yaata xibaar yi digg euh, rek wax nañ ko sanq ci ndortal yi bokk na ci li nga xam te mooy jëm ci ab ndaje bu yaatu boo xam ne ab atelier de la ko wunn bokk na ci nag ña ko song de acteurs politiques yi gis na ba max askan wi ñu bàyyi xel wat yi ndaxte ñu nim ku ci xew bu Sénégal lu ci bëri ci euh, nit ñi daal dañuy toog seen i kër lank kandaaral bañ a wote ji ñu jàpp ne du yoon dañoo war a suubu ci wàllum politique tax ndaje bu yaatu lañ ca woote woon ngir illa ji leen a ñaax ci wàllu woowee Pape Ousmane Cissé moo ñuy tënkal la tukkee ci ndaje ba. amal dafa jëm rek ci leeral ana moo tax ba ñenn ci askan wi ñu dem wate ji mu mel ni bëri na ci ay ponk yu koy indi bokk na ci lii ñu fësal. defal élection amul njariñ parce que du soppi dara maanaam ñu bëri jàpp nañu donc ñi fi nekk boo leen fi jëlee itam ñi fiy nekkaat ñëw même chose la ñuy répété yeneen cause yi bokk na ci par exemple euh, li ñuy woowee. Euh, divorce bi entre classe politique bi ak citoyen bi ñenn ñi jàpp nañu li ñuy woowee inefficacité de l' action gouvernementale maanaam élection daal du soppi dara. ngir soppi lu nu mel tax ba ñu ci ëpp ci waa société civile bi jàpp ni faaw ñu ci ëpp ci askan wi mën di wate ngir mën a jëmbal ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tabb. bu fekkee ne dañu nekk 6 millions électeurs ñaari millions électeurs tànn leen ñooñu bu ñu demee ñu ëpp ci Sénégal mën nañu ñuy toogaluñ ñu fa mais bu fekkee ne ñi ëpp ci Sénégalais yi maanaam ñi inscrire ñoo votel ñooñu ëllëg lu ñu def ñun ñun nañu assumer ñun ñoo leen fa teg. ci geneen wàll gi ñuy sàkku ci way politique yi ñu fexe ba xam seen ko wareef bokk na ci jëlee fi xiiroo ŋaayo bi. ñu responsabilité ñun homme politique yi ñu xam ne élection lu normal la lu souhaitable la parce que foofu rek la citoyen bi am pour mu ne kat man bokk naa ci ñi tànn ñi nga xam ne ñoo may jiite. li ñuy waxee ne nit ñi ñëwuñu voté. dañ koy seet rek ci ñi bindu déedéet man d'accord ma ci loolu dañ ko war a seet ci ñëpp ñi nga xam ne toll nañu ci voté te voté wuñu. gëstu bi it wane ni ñi nga xamante ne du faral di voté bokk na ci ñi nga xamante ni daanaka gisuñu seen bopp ci anam bi ñuy amalee politique ci réew mi ci ponk boobee ñii di kilifa yi di dalal xelu askan wi jàpp ne am na ci ay jéego yu ñu ci def. au-delà. des défis de l'enrôlement ñuy dalal xel yi ne ñu ngi ci ay jéego yu solo jëm ci bindu bi waaye li ñu bëgg mooy ginnaaw bindu bi ci lim biñ ci am askan wi dem jëli seenu carte ñu fexeet ba ci élection yi limu ñu wote mën a la faible participation aux élections li wér wër mooy limu ñi nga xamante ne duñu wote dafa yokk saa yu ñu noppee ci amal lii di wote ngir saafara lu mel yi le acteur boole seeni doole ngir wéyal xalaat bi waxtaan ak askan wi ngir ci élection yu ñu dëgmal li mu ñu wote mën a yokku

xamante daal beneen lay wuuteeg yi am ni tey gis nañu ne ñeneen ci ñi ay kuréeli politique daal leen fekk si bokk ak ñoom xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ñu ànd ceeg Fatoumata Touré ñaari a rek dess ci élection législative yi coalition du bu wuteeg Benno sigil Sénégal ak Manko Wattu Sénégal coalition bobu nak ñi ko amal ñi ci gën ci président Abdoulaye Wade Cheikh Tidiane Gadio Mustapha Girassi ak Abdoulaye Balde. waaye tamit ñu bolé ci Mariam Wane bu mouvement Parrainant président NPCL sax di xamalé ni ñom dañoo gisul sen bopp ci Benno Sénégal waaye tamit ci Manko Wattu Sénégal loolee rek mo waral ñu tek sen coalition lé Manko ni ko doxalee nii dafa mel ne dañu am confrontation delloo ñu 2012 pour le peuple bi tranché woon ba réglé ko ñu delloo si débat boobu pour xool yan ñaari grande force politique ñoo nar a xëccoo Sénégal ñun nag ñu xalaat ne li ëpp ci Sénégal li gën a taxaw bëgg defar Sénégal bokkul ci benn bokkul ci coalition beneen bi ñu bëgg proposer en tout cas dynamique bi ñu bëgg proposer bokkul foofu ñu ne donc dañuy taxawal beneen ñetteeli coalition boo xam ne.

à beneen coalition taxaw temb ngir rek rupture am ci pencul ndaw réew mi ñoom nag ñu ngi teg ay stratégie yu bees loole sax waral ñu xamale ni dina am yeneen mouvement yu ñu bokk ci ñoom bu mel ni bu Baye Mamour Niass bu Kaolack ñoom nag namu nañu booloo doon benn ba seen coalition bi ci raw gàddu ki ci élection législative yi. ba tey ci jongante Fatoumata Touré am nag mouvement boo xamante ni nar a fekk maanaam bu yees bu juddu ñu tuddee ko ka ko taxawal di maître Aïssata Sall jël langu boppam bet di yoonam bokk na ci nag la mu xamle mooy coalition mouvement boobee bootuwul ci ginnaaw benn bokk yaakaar waxi tamit waxi euh, bokk na ci tamit lu jëm ci wàllu Manko Taxawu Sénégal ne ko dana ma bokkut ci seen ginnaaw lay bootu la mu xamle mooy euh, lu jëm sax ci bokk ak ñii di waa euh, majorité wala bokk pouvoir bi wedd yan la ci ay kàddu yoo xam ne ñoom sàkk woon nañ ko kii gën a taxawal seen yoonu bopp ci wàllum politique mu gis ne fi mu nii jot na tembe askanu Sénégal xam nak mom la rek ñi di way politique di doxal ci xew bu Sénégal lu ci mën am dañ ci teew leerale ak Pape Assane Ndiaye. Aïssata Tall Sall fas yéene si ci législative 2017 ak mouvement bu bees bu mu taxawal Oser l'avenir nak don mouvement politique bi demal boppam té outer yenen ñaari coalition yi benn bokk yaakaar ak Manko taxawu Sénégal. mouvement bi ñu koy wowe oser l'avenir oser l'avenir moy ñun ñep nañ and ñame ëlëk ndax ëlëk dafa am lëndëm lëndëm xamoo lu nekk ci biir mais tant que taxawoo ëllëg daf lay bett te ñun bëgguñu ëllëg di ñu bett dañoo bëgg ëllëg ñu koy waajal bëgg ëllëg ñu am si taxawaay ba nga xam ni bu ñëwee même bu fekkee ni lépp lépp lépp lépp lépp duñ ko xam mais li ñuy bett yàlla na doon lu néew a néew a néew. leaderu mouvement bi Osez l'avenir di ñaawlu taxawaay bi alternative 2007 jël ndaxte si ay kàdduwam buñ ko doon taxawal 2014 du woon ngir soutenir Khalifa Sall. ñu ngay lancé initiative 2017 bi ma xoolee mbir mi daanaka sax beneen initiative la du bu ma bokkoon man man defena bi ma bokkoon <laughs> mu ngi fa tege ba parce que bi dégg mouvement de soutien ci Khalifa Sall Khalifa Sall mouvement de soutien boobu ñun bu ñu koy def bu ko soxlaa woon sax neneen la ko doon doxalee mais du woon bii bii dañ ko sampoon rek ngir dem élection ñu ba ci ma gis ni def nañ ko mouvement de soutien ba pare dañ ko Manko Sénégal Manko Sénégal mosuñu ko initiative 2017 ay Aïssata Tall Sall dellusiwaat na ci projet de loi yu ñu gum voter fofu ci assemblée di ñaxtu tamit ñu bobu assemblée. bu fekkone dañu baye won député yi seen sago ñuy doxal ak seen sago ñom nga xam askan bi mo leen fa teg demoon député yi bu ñu xalaatee dara ñu baye leen ñu am sañ-sañ xalaat bobu ñu doxal ko bu mu egg ba askan wi xamni député yi kat xarañ nañu li leen fa yobbu xam nañ ko te ñom ci seen bop ñu ngi koy weyel Osez l'avenir nak bu législative coalition Pape Alsane Ndiaye loolee di mouvement bu yees juddu di Oser l'avenir bu Aïssata Sall bokk na ci yeneen mouvement yu judd yoo xam ne ni ñii di ah, seen xam-xam màcc ci wàllum politique indi nañ ci jàngat bu ñu ci def ginnaaw ñaari weer ko ci tere siiw lii di jongante ñi war a toog ci siis ca pencum ndaw réew ma bokk na ci la ñu gis ne nag yooyu les coalition maa ngi koy ndax ñoom loolee wala boog mbootaay yu yees yooyu ndax mën nañoo am wërsëg maanaam chance ci wàllum politique jëm ci pencum ndaw mi ndax it seenu daanaka xaajaloo ak coalition taxawu Sénégal ak benn bokk yaakaar ndax mu indi ngaañ tefal ak njeexantal gu bon ci ñoom lu ci mën a am leeral yi daal ñii di nag xam-xam seen xam-xam màcc wàllum politique leeral nañ ko ci micro El Hadji Moussa Bey législative yu fanweeri fan ci weerub julet doon nay jongante yu ñuy xaarandi enjeu bu mag a mag li koy firnde nag doon mouvement ak coalition yi nga xam ne jamono ji ñu ngi juddu ñuy laajte sax ndax ñoom ñile am nañ ci seen chance. am benn électeur ñaar ba ci ay centaine La leen noire, c'est légitime pour eux euh, secrétaire général de parti qu'il y ci une coalition mais aussi c'est des enjeux de conquête du pouvoir qui poussent certains à faire des alliances euh, circonstancielles madame. contexte bi parfois mooy déterminer nature alliance acte ak circonstances yi nga xamante ni alliance yi du yi ni négocier pour ces élections dama wax nii am na ay objectifs sectoriels ku ci nekk am na loo xam ne yaa ngi koy wut ca gox ba nga dëkk ku ci mel ni ay sata tey fa fa mu fekk baax ca podoor mi nga xam ne moom moo fa nekk maire nekk fa responsable parti socialiste am na fa ñoo xamante ne mën nañu ko fa jàppale am na fa doole boo nga xam ne yaakaar nañ moom mën naa gagné. gannaaw bañ leen taxawalee Osez l'avenir bu Aïssata Tall Sall ak kuréel bi nga xam ne moo dajale Cheikh Tidiane Gadio ak ki ñoñam firnde nañu seen ñàkk ànd ak kuréel yi di Benno Bokk Yaakaar ak Manko Taxawu Sénégal ñaari pôle yoo xam ne nag ba file ñoo dominer nag langu politique gi seen ñàkk warloog kuréel yooyu le nag ndax du leen indil jafe-jafe en kañ bu ñu sukkandikoo ci ñi le seen xam-xam màcc ci politique. mbooloo mooy doole bu fekkee nag dem nañ ba ñoom ku ci nekk bersa daara ñu gis ni am na ñetti coalition yi nga xamante ni ku ci nekk yaa ngi woote ni man la foofu la seen problème nekk mais jàppal ni ñoom bu ñu àndoon tey jii ni boolewu nekk ci foofu lañu foofu la doole di gën ndax nature élection yi nga xamante ni tey ji ci lañ jëm booloo la laaj booloo boobu moo tax ba léegi gis Benno Bokk Yaakaar des di di di nekk benn coalition boo xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi bokk. dañuy ànd mais volonté en quelque sorte wala bu fekkee wóolante nañu woon am na ñoo xam ne seen yaakaar tas na ci biir ànd bi te yaakaar boobu tas tax na ñoom seen bopp décidé nañu jël seen responsabilité ber seen daara taxaw tem pour xool ñoom lu ñu mën ak fan lañu mën a yeggee ak naka lañ ci mën a yeggee. jamono ji nag seetlu gi benn la mouvement ak alliance yu ci bëri ñu ngi féete ci kujje gi di firnde rek. seen bëgg-bëgg imposer cohabitation régime bi nga xam ne moo fi ne ndax mun na antu ci tasaaroo ba ñu nemmeeku seen diggante tontu gi dañ ko xam ngoonu fanweeri fan ci weerub sulet jaajëf El musa Moussa Beye ñu yónni yàgg yàgg bawul dara li ci kanam rawti gët jaajëf daal di ndar képp xëtum politique bi ubbi beneen xët bokk na ci nag wàllum euh, lu soxla askan yi jëm ci nag ci xale yi ñoom ñi nag seen ko taxawaalu te mambalu ci kaw tali bi soxal na lool ñi nga xam ne ñooy kilifa réew mi lu ñu mel mooy illee li nga xam nag ndaje bi nga xam nag kii di euh, jëwriñ ñu gàll lépp lu jëm ci wàllum yoon ci xew bu Sénégal lëkkaloo ko ak au commissariat nekk ci mbootaayu xeet yi daal di nag taxawal ab boo xam ne nii teg ab projet ngir njàppandal xale yooyu jëli liñ ci yenn ñett gi koppar ya cay dugg sax toll na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett ci ay millions ci suñuy koppar ci gafaka xew bu Sénégal loolu lañ ko jagleel ngir nag pàcc bu njëkk bi gën koo mën a doxal dañ ci ànd ak Aïda Mamadou Diop ma ngoon ci ndaje ba ñu ngi toppandoo li nga xam ne ni moom la sëriñu daara bi daan leen def wala sax seen yaay wala seen yaayu jiitle gone yi di màggal projet bu yees bi nga xam ne ni dañ ko teg ngir xeex yalwaan gi taxawaalu gi nga xam ne ni xale yi ñu ngi koy taxawaalu ci mbedd yi li ni mel nag ñi ngi ko jagleel li ñu dippee centre premier accueil di exister depuis atum 2015. li ñuy ëpp solo mooy xale yi nga xam ne nekk ci ay fitna wala bu ñu ay tolof tolof olof di wax ci yaatal mooy tolof tolof tolof tolof li sëng bari na. xale bu ñuy boo xam dañ dañ koy dañ koy final xale boo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy maanaam dañ koy jëriñu xale boo xam ne dañ koy dañ dañ koy dañ dañ koy yegg ci koom yu mel na mooy xeetu viol ñu wax viol yegg ci koom ak def lu ko neexul def ci moom loo xamante ne jaaduwul. ñi nga xam ne nii ñooy coopération italienne ak haut commissariat des droits de l'homme nag ñoo financé projet googee projet bi mu ngi toll ci 328 millions ci suñuy koppar Sénégal ci wàllum xeex xale yi nga xam ne nii ñu ngi ci mbedd yi moom daf ci yëngu bu baax a baax looloo tax ñu nangoo dugal seeni koppaar ci li ki fi teewal ministre de la justice nag di xamle ni Sénégal wàllu yoon rek moo ko soxal rawatina droit de l'enfant. la démarche du doxalinu nguur gi mu ngi sukkandiku ci ab gis-gis boo xam te ni dafa jëm ci càmbar li nga xam te ni mooy cadre juridique boo xam ni dafay aar ñi nga xam te ni ñooy xale yi waaye ti tax taxawal ay programme yoo xam ni daf koy tekki ngir mu leer ci bopp ñëpp. et centre premier accueil yi nag lu am solo la xale yi dinañ leen fi dalal yar leen ba bu ñu génnee fii ci diiru ñetti weer ñu delloo leen seeni way jur. bi ñu tàmbalee ba léegi jël nañ fi téeméeri xale ak fanweeri juróom. amaana comme ni dañ ne prise en charge d'urgence diir bu gàtt lay doon ci anam tënk ko ci noo xamante xale bi dañ fexe ba lëm lañ soxla ci moom ñu def ko ci kon loolee du mën a yàgg moo tax xale yéen saa yi nga ne téeméer ak fanweer ak juróom waaye ci fi mu toll nii juróom benn xale lañ am. centre premier accueil yi nag lu am solo la looloo tax ba ñu jagleel ko projet bi ñi ko seq di am yaakaar ne xale yi ci mbedd mi bés dina ñëw dina dakk Aïda Mamadou Diop xale yoo xamante ni nag ñi ngi am mbégte lool bokk na ci ñuy yiwoo ca Gibraltar ak centenaire foofe nekk seen gox bi démb la ñu daloo seen école boobu nga xam ko naa ko xam ne yeesal nañ ko am it salle boo xam ne ngir jàng wàllum xarala yu yees yi di salle bi mu nekk loo xam nag waa askan wu fooxoon ñëw rafetlu ko lool njiitalu gox bi jàpp ne moom Bamba Fall du ci yemani daañu ubbi yeneen centre yoo xam ne daañu tàggat bu baax askan wi rawatina jigéen ñi ca gox ba ñu mën a am xam-xam xarañte mën a bokk ko ci rek àdduna bi liggéey di monde de l'emploi dañ yi nag école bi yemul fii de R plus la dañoo yàkkamti woon pour élèves yi dugg effectif bi sax matuñu ko woon parce six classes la soxla woon mais da ngeen jàpp ni am na étage buy teguwaat ci kaw ngeen jàpp ni tamit fii ñaari weer école Babacar Ndiaye Watt nga xam ni mooy chambre tous fa mu nekk marché bi fa nekk nga xam ni camions yi dañuy verser ay géej gi jël euh, kër yi sori fa loolu ndax jéggi bi ñu gis ni kon indi ko ci biir quartier bi moo gën moo tax boo jàddee koñ bii rek gis ngeen école bi tabax nañ ko ba kuule moo ci des bu dul woon sax mission bi ma nekkoon kon nag ni pare woon na wante yaakaar naa ni fii ak ñaari weer dinañ ko inauguré dinañu inauguré tamit centre de formation technique féminin bii nga xam ne jigéen ñi ci barkaar yi nga xam ne seen jàng daal teel a yàqu dinañu mën a jàng métier jàng informatique jàng ñaw jàng coiffure ñu fexe ba jigéen ñi parce que wutal nit liggéey jaadu na waaye ku am métier moo neex a wutal liggéey moo tax ñu bëgg xale yi xam dara jigéen ñi xam dara ñu neex a wutal liggéey. kon monsieur l'inspecteur li ma la mën a garanti mooy balaa école bi ubbi ci nawet bi dinaa defaraat ak conseil municipal bi école yi fi des yëpp école yi dinañ leen relever bu neexee yàlla. balaa sama mandat di jeex école bu bon duñ ko bàyyi ci Médina tali bu bon amatu fi lamp bu tàkkul amatu fi jàkkee yi ñun la ñuy defaraat école yi laay defaraat delloo leen seen i caabi ànd ak Khalifa Sall ñu liggéeyal Sénégal liggéeyal Ndakaaru wasalaam ba tey ci xew bu Sénégal jàppale ne euh, xabaar yi jàpp jàppaleen ci lu jëm nag ci dëndu Afrique réew yi nga xam nag ñoo ñoo fi nekk ci dëndu Afrique ñoom nag jamono jii gis nañu ngi def ay jéego yu am solo ngir xeex lu jëm ci jàngoro yi wàlle ak. duñ ko wàlle naam sax ñu cee def waaye njaw a ngi des ñu xam ne ndax gis nañu ne am na ay cas yu ñuy fay am ci réew bu Sénégal euh, ci réew yi bokk na ci réew bu Sénégal tax ñi nga xam ne ñoom ñoo ci a mën a saafara bokk na ci ko ak réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bët gànnaar bi maanaam ñu duppe leen les pays du nord ngir ñu mën a gën a indi saafara ci wàllu woowu dañ ciy teewlu ki nga xam ne mooy secrétaire général bu euh, këruk ministère gi gàlloo lépp lu jëm ci wàllu wàllum wér gu yaram direct docteur Ibrahima Wane ay kàddoom La science, la technologie et l'innovation constituent des leviers moteurs science technologie ak li soxal wàllu innovation nag bokk na nag ci li nga xam ne moom la ñu war a sukkandiku rek ngir mën a indi ay coppite ci li soxal ëllëgu askan yi bokk na nag ci li gën a mën a tax ñuy fagaru ak wér ci yenn feebar yi contexte bi nga xam ne nag ci la jamono ji tollu ak coppite yi ñu ci nemmaku li soxal nag recherche médicale mun nañ jàpp ne ab chaîne la mu war a tàmbalee nag ci saytu bi jëm rek ba ci cappaandaw gi mën a tax ñu indi paj gi ci war lël bi nga xam ne nag amal nañu ko ci yoon boobu la tënku pexe xool rek nu ñuy lëkkalee doole yi may réew yi nga xam ne bokk nañ Afrique francophone tontu yi war ba mën a lal lekk ab politique publique soxal wàllu wér gi yaram dina tax nag ñu gën a ñoŋal nag li jëm ci wàllu saytu bi ak naka la ñuy gën a améliorer rek li jëm ci dimbali way tawat yi ci feebar yu ci mel ni cancer ak laago. ci wàllu mbir gi ram googee la ñuy des ne ba tey bokk na ci ne coow dëkk ma ni nag fële ca fële ca Bawal bokk na ci nag ca Touba Mbacke kërug docteur googe ñuy duppee Matlabul Fawzayni mel na nag ña fay liggéey jamono ji am nañu leen naqari euh, bu ak njàqare gu ñu nekk ndax nag dafa am ñoo xam ne di ñu banqaso ci nguur gi ne nag daañu mën a daaneel foofu yenn ci ay taax yoo xamante ni nag euh, daanaka ay services yu bëri ñoo fa nekk ñoom tax ñu ñaalu ko daal xonq cooy ak seeni brassard rouge jàpp ne daal lu ni mel daal euh, rafetlu wuñu ko tax ñu poroxlu di euh, ñàkk euh, baaxu ko lii di plateau technique bu kërug docteur googee dañ ciy teewlu leeral yi ak kii di docteur Ira Ibrahima Ndiaye dénk na ko sunu ndaw bañ fa nekkal di El Hadji Modou Gueye ñu liggéeyee mooy li nga xam ni mooy xolu hôpital bi mooy bâtiment bi nga xam ne waa Matlaboul Fawzeyni ñoo ko fi tabaxoon mu yàgg Nous sommes ci ba léegi bâtiment bi technicien sur le plan niveau département niveau régional ba au niveau national d'accord nañ ni bâtiment actuellement nous a continuer supporter li mu doon supporter ci bloc opératoire bi nekk ñeenti salle opération mu ngi ci ci la maternité bi nekk salle d'accouchement bi ak hospitalisation bi ci la réanimation bi nekk muy réyanimation mixte bi nga xam ne nii ñu feebar ba sonn foofu lañ leen di gérer chirurgie fa la nekk service d'hospitalisation bi fa la nekk donc service bu mel noonu mun naa wax ni moo tax ñuy wax hopital bu ñuy wax tey hôpital niveau 3 hôpital bâtiment boobu moo ko tax te bâtiment boobu wan nañ ñu ne yàgg nañ ñoo wax nag que ni bâtiment bi am problème ñuy defar ak defaraat bi ci avant màggalu daaw Tenir énergie journée bi sensibiliser personnel sensibiliser opinion publique bi bu ñu Nous fii ñoom un toogaat le secrétaire général du succès, du SINTRAS ak SAMES. évaluer évaluer bu évaluer journée bi a une perspective nous devons faire. mais à partir d'aujourd'hui xam ne on restera pas les bras croisés ba fin juin. waxlu soxal walum farine bi nam sax njubini buñ ko diggé sen xel sori lol jëm ci wàllu mburu mi bokk na ci ñaar yi at yi xew bu Sénégal ñu gis yokkuteef jëm ci walu woowee ci nak ni ñuy amale walum farine bi fi ci xew bu Sénégal nek lu mëna am jéxantal gu métti ci nak sac bi nga xam ne wara duy lu toll ci juróom fukki kilogram mu melni lu ni mel motax nak nguur gi xam jafe-jafe bobé ñu am nak ab ndaje bu yaatu buñ ci def ab jàngat jël ay ndogal ci concurrence bi ñu jàpp ne nak mo am ci digënté industrie yooyu nek ci xew bu Sénégal di liggéey liggéeykaay yoy di liggéey lu ni mel jàppaleen nag fi mu nekk nii lu toll ci euh, daanaka junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukki dërëm kocc moom lay jàll boobu lépp sàkk euh, fi mu nekk nii yeneen i tak ay matuwaay yoo xam ne muy gunge loolee daañ ko jël dañ ci ànd ak Ababacar Sadif topp ci leera ab concurrence bu kenn mësuta gis moom lañu ñu seetlu ci wàllum jënd mbeeg njaayum farine mili lii waral na sax ñi nga xam ne ñoo ñooy nguur gi ñu dugal ci seen loxo ngir gën a mën a organiser waat secteur bi li ndaxte seetlu rek moo di production bu bari bi dafay indil ay perte ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk 2014 ba léegi dañ fi ràññee constaté que entreprise yooyu di yëngatu ci wàllu farine ñuy juróom-ñaar seen xeex mi dafa weesu dayoo ba bu ñu ci deful ay jéego mën na indi loraange d'abord ci ñoom waaye aussi ci koom mu réew mi ndax importance bi secteur bi am ci wàllu farine waaye it doomu Sénégal yi fay yëngatu ak li ñuy contribuer ci koom mu réew mi ci wàllu fiscalité

kon loolu nekk na concurrence amul intérêt pour comme réew mi dogal bi mooy blé bu ñuy jéggaane industriel di ko mi dañ koy bi dogal bi prix plancher maanaam njëg bi warul euh, gën ki nga xam ne moo di ministre bu jëm ci wàllu jënd ak njaay mi moom kat woo na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum farine bile ñu gën a góorgóorluwaat ba lu ni mel bañ fee amati ndaxte kat jàpp na ne lii moom mooy intérêt ñoom ñii nga xam ne ñoo nekk ci entreprise yooyu waaye itam mooy intérêt nguurug Sénégal ba tey fii ci xew bu Sénégal abaaxu sa di topp ñu àddu ci wàllum caada bokk na ci nag tey ci fukki fa ak juróom-ñett ci euh, weeru mai atum 2017 àdduna wërngal këpp te màggal bés bi ñu jagleel wàllu musée mu ne nag euh, nekk na loo xam ne daal suñu rédaction bi daan nañ ci def gëstu lan moo taxit ak njariñ bi euh, lan moo ko tax a jóg bokk na ci lu jëm nag ci bële du Théodore Monod mu mel ne foofee nag nga xam ne moom moo koy rek wala bokk wattu di conservateur bi daan nañ ci amal ab journée ñu duppee ay journée portes ouvertes ngir nag gën a fexe askan wi xam bu baax lan mooy njariñ boobule ak nataal ya fa fës bi ñu sukkandikoo ci Malick Ndiaye mooy nag lu ni mel sax bokk na ci tax ñu gën di sàmm ak it aar lu jëm ci lii di rek taarixu xiw bu Sénégal ñoo ne ceeg ko de njaay ciy leeral. ñëpp daal di koy xam loolu nag moom moo undu bés bi nga xamante ne nii musée Théodore Monod jël na ko muy nag bés boo xamante ne nii kenn du fay dara te da nga mën a visiter bërëb bu ni mel loolu nag conservateur bi jël ko ngir nag màggal bés bi nga xamante ne nii moom lañ jagleel musée ci àdduna wërngal këpp. dañoo nekk euh, ci journée boo xam ne dañ ko dagleel euh, musée kër aada ak cosaan euh, mu nekk journée internationale léegi journée international boobu. ñun dañoo ni musée Théodore Monod comme euh, sénégalais yi ñu ci ëpp lu ñu visité musée bi ñu ni tey jii visite musée bi day nekk visite boo xam ne c'est gratuit maanaam doo fay dara mën nga ñëw visiter am na guide boo xam ne moo fi nekk pour expliquer leen pour wan leen lépp loo xam ne nii moom la musée bi mën a wane. conservateur bi moom di xamle ne bépp sénégalais war nga mën a ñëw ci bërëb bi ngir nag mën a xam caaday réew mi waaye itam fexe ba xam naka la mag ñi daan dundee. Sénégalais bu nekk du mën nga am réflexe boo xam da ngay toog weekend nga naan ni man de maa génn tey dem visiter musée parce que musée dafa nekk loo xam ne nii li ñu denc fii aada yi fi denc cosaan yi fi denc histoire bi fi nekk dafa nekk histoire sénégalais yi te sénégalais yi nag ku nekk da nga war a bëgg sa bopp euh, gëm sa bopp ba pare gëstu nag ci sa histoire. ci bés bi nag ñu jagleel musée ci àdduna bi ñenn ci école yi nekk ci dëkk bi daal di yebal seen ay ndaw foofu ci musée Théodore Monod jàngalekat bi nag di xam ne ne visite bu ni mel am na solo ci ay ndongoom. Euh, dañu préféré indi xale yi ren fii. pour euh, vraiment ñu jéem a jàng ci seen culture jéem a xam effectivement effectivement donc seen culture naka la seen euh, ancêtres yi seen maam yi daan dundee n'est-ce pas ak euh, effectivement donc seen n'est-ce pas seen tradi seen tradition seen jumtuwaay yi et tout. ñu bari ci Sénégal yi nag du ñuy faral di dem ci musée yi ngeen visiter la fa nekk loolu nag ki nekk conservateur moom di ko naqarlu te xam le ni danañ amal ab communication bu am solo ngeen nag sénégalais yi mën a xam lan mooy njëriñu musée ci Sénégal.